thank you mbokk yi asalaamaaleykum seen émission seen jotaay tey ne ngi koy seq ak uh, Pape Massata Diack président maa ngi lay nuyu. Amath uh, maa ngi lay sant. Mm-hmm. di la bu baax a baax. Mm-hmm. Uh, di nuyu téléspectateur yu seen TV yi. nuyu suñu mbokk yi ak kilifa yi nga xam ne ñoo jiite réew mi. ak kilifa diine yi. tàmbali ci sama wasila di sëñ Mouhamadou Mountakha Mbacké. Mm-hmm. ak sëñ Abbas Mbacké bu Daaru Muxti Euh, li may tàmbale nag mooy euh, jàll réew mi euh, jamono ji am na kilifa yu bari yu fi jóge kilifa diine yoo xam ne ñu ci bari sax am nañ ci sama wëllëre baay lañu ko mel ni xalifa Medina Baay bi Cheikh Ahmed sëñ Abdoul Aziz Amin ñu fi jóge donc ak sëñ Ahmed Tidiane Niass Niass Pape Malick Sy di yàlla Pape Malick Sy xam ñoom sama goro baay lañu Euh, ñu ma xamoon bu baax lañu euh, di ñaan tamit euh, yàlla na yàlla leen xaare àjjana xaare na tamit sama mbokk taalib boobu di bàyyi njëkk a jóg ñu fi jóge doon conférencier ak ñu bari ñu fi ñu xam ne feebar bi moo leen fi jële vraiment nekk nañu ci situation bu metti xam naa ne sax dama am lu ma diggee woon ak yow rek moo tax moom def émission bi nii mais circonstances ak condition yu métti la mais comme actualité bi daf ko laaj. ñu leeral lu bari moo tax ñu def ko waaye maa ngi ñaan suñu mbokk sénégalais yi tamit ñu euh, sooraalee daal ne mbas mii moom. Mm-hmm. Euh, natt bu metti la. te mesure barrières yi war nañu ko respecté war nañu góorgóorlu ci euh, ni ko président de la république waxee ci conseil des ministres barka démb rek ñu moytu bu baax a baax bu pare nag ñu jéem a sàmm suñu mag ñi nga xam ne. Euh, fan yi ku ci xaw a xiiboon rek te dem hôpital mën nga fay jóge hmm. euh, yàlla defal ñu taw ba lii ñu mucc ci ñu mucc ci jàmm ak salaam voilà maa ngi lay remercier ci invitation bi ma defal nii jërëjëf fi ñuy dooree laaj yi nag euh, mooy rek lu jëm ci wàllum coow yi nga xam ne nag am na ci IAAF ñu tudd la ci tamit lu bari sa waajuru góor tam yàlla dogal mu nekk ci France ci kanamu tribunal est-ce que mën nañu xam daal ci résumé ubbi bi rek mbir mi fan la dooree ak lan ñan ngeen xalaat ni ñoo ko déclenché. bon mbir bi nag euh, Ameth euh, d' abord euh, dana nuyu secrétaire yi dafa remercier la ci dalal bi nga ma dalal ak opportunité bi nga ma may ma leeral Sénégalais yi. leen sama mbokk yi nga xam ne boobu tey ñu ngi ñuy jàppale di ñu yónnee ñaan di ñu taxaw di ñu waxal ma leeral leen ne mbir bi loo xam ne la ñu ngi ko sooxee ci mois de juillet 2013 exactement le 6 juillet 2013 benn article benn. journal anglais bu tudd Daily Mail. ñoom ñoo tàmbali mbir bi di ci wax di wax ne Russie dafa bari ay athlètes yu ñuy doppe ba di ñaan sax ñu annulé championnat du monde yi ca 2013 boobu ñu ngi ko am ci dëkk bu ñu naan Moscou euh, nekk Russie. ba loolu amee ñu réunion ko ne ah lii de foo ñu dem jublu ci ndaxte dëkk bu am solo la ci ñun ndax bokk na ci dëkk yi nga xam ne. man maa ngi fay prospecté ci ay sponsor depuis 2006 waaye 2007 laa fa signé contrat. mooy Russie ah. Russie léegi nag euh, ba ñu gisee foofu ca Monaco ñu dënk ñu ne kon foo ñu dox ci euh, bu jéem a seet mbir bi naka lañ ko mën a saafara saafaraay lu mu gën a gaawee alors ba ñu gisee loolu rek dañu yaakaaroon ne bon euh, dañoo foogoon ne rek ne championnat du monde yi tax ndax xam nañ championnat du monde yi dëkk yi xëccoo tey réew àdduna yi ñii xëccoo. ndam ci sport dafa bari te ñetti dëkk ñoo xëccoo euh, États-Unis yooyu xëccoo Chine ak Russie ñu dëkk yi gën a mag euh, léegi sa su si yooyu Angleterre topp ci ay France topp ci Canada ak yeneen dëkk yi waaye nag euh, xëccoo bu mag a mag bi ci ñetti dëkk yooyu la ñu ne xam naa ne tamit du ñàkk encore jamono jooju xam nga rek xeex bi amoon Ukraine am Syrie ñuy jàpp ne daal ñu ngi jéem a déstabiliser waa Russie waaye taxul ñu dox ci ay jéego euh, ba ñu ci d'accord ñun ñëpp ku tudd Nick Davis man moom ma yëgal ne ah dafa am ay athlètes yoo xam ne dañu leen a suspecté affaire dopage ñoom lañu ñu war a euh, wóor ne dañu bokk ci affaire bi boobu fekk may dem Russie man leen ah man kon de su ma demee naa ko wax président fédération bi leeral ko ak moom ne ko nag lii su fekkee dafa am euh, gàcc lay doon ci ci sa compétition bi ak ci ñun tamit kon nag na ko saafara lu mu gën a gaaw parce que boobu yaa ngi liggéey ak fédération russe boobu maa ngi liggéey ak fédération russe depuis mhm. donc loolu moo ma ci njëkk boole ñaareel bi 2014 benn employé bu nekk biir euh, IAAF tudd Sean Wallace Jones nekk euh, anglais ñëw déposé benn plainte commission d'éthique ne dafa am atlet bu ne day dañuy fay xaalis pour mën a continuer di compétir ba muy participer ci Jeux olympiques dafa fay xaalis te ki ma ko fay ay nit yu ñuul yuy ñëw foofu ca Russie la alors ñaari nit ñoo fa doon ñëw man ak maître Habib Cissé waaw ba ñu ma wooyee loolu góor gi daf ko jot rek yëg ko woo ma ma ne ko ah dëgg yàlla <laughs> kii wax lii de mosuma ko gis xaw ma ko sax ma leeral ko ba pour man euh, amul solo ndekete ca biir ña ngay enquête enquete bi nag ñu ngi ko tàmbali le de juillet 2014 ki ñu dénk enquête bi benn avocat anglais la bu tudd Michael Beloff ak benn enquêteur bu tudd Anthony Hooper ñoom ñaar nag ñoo commencé enquête mbir bi ndekete ci moment boobu tamit am na benn journaliste allemand bu tudd Hans Joachim Seppelt bu nekk ARD benn chaîne allemande mhm. boo xam ne ma ngay gëstu mbiru Russie ba pare ji wax naan Russie daanaka champion yëpp dañoo doppeewu moom di ci def enquête bu xarañ ba pare ji def même chose tamit ci Kenya moom daal dafa ciblé ñaari dëkk yooyu Kenya ak euh, Russie waaye Russie surtout ba ci mois de décembre 2014 euh, le 3 décembre exactement boobu am na benn session CIO bu am Monaco mu def benn documentaire bu mag naan naka la waa Russie di defaree seen champion yi après ñu bind ci même jour bi benn article ci l'équipe mm-hmm. benn journaliste bu vingt Marc Ventouillac euh, boo xam ne moom moo nekkoon ci commission presse IAAF bind article naan est-ce que Russie Euh, corrompre IAAF alors ca lañ xam ne nag am na fu ñu jëm. am na lu xew ndaxte dañ ñoo attaqué frontalement ba le 7 décembre ñu def benn article en pleine session CIO. E. nekk ci euh, commission ba pare bind article. bind article kañ kañ da bind laajteewul sax xam nga su dee suñu bind article bi ñu lay laajte ne la damay waaj bind lii dañu ñoo jub ñu ne yow ak yow ak yow. daf ngeen mais yoon defuñu ko dañ koo bind noonu rek fësal ko. Mhm. waaye li ci doy waar mooy ñu ngi ko def en pleine session CIO ces session CIO ma nga amoon Monaco fi siège u kuréel bi sama papa jiite nekk muy IAAF alors ci période boobu nag lañ ko def ba ne dañoo sax gis benn transfert bancaire bu jógee euh, ci benn société boo xam ne mu ngi euh, nekk xaritu papa Massata Diack kon nag daanaka malgré la ma leen tontu woon ci avril 2014 ne kii kooku ñuy wax naan gis na ma. Mm-hmm. musuma ko rencontré ñu bind loolu kon. ñu xam ne ci suñu sama kaw lañu jëm ma demanderai suspendre samay activité le 12 décembre 2014 bind lettre waaye ci diggante bi am ay kilifa yoo xam ne kilifa lañu ay avocat bu nekk Suisse autour de François Carrare dam seeti sam papa ne ko dama bëgg nga démissionné ndax am nu bari lu ñu xam ne xam nañ ko ci yow xam nañ ko ci sa baay ci sa doom alors sama papa ne ko lu tax may démissionné nee dañ koy enquête nañ ko enquête enquête bi yëg naa ko démarré nañ ko mais bàyyi la ñu enquête donc foog naa ne ay pexe yoo xam ne ñu ngi ko tàmbali euh, depuis 2013 2014 hmm. ñu gën ko sàppali fekk boobu amul leneen lu ñu gis lu dul succession wu Lamine Ndiack bi war a am août 2015 ca Pékin congrès IAAF Lamine Ndiack dafa waroon arrêté mandaam après 16 ans de présidence ñaari nit lañ gisoon ne mu ñoo ko mën a am ku tudd Sergei Bubka dëkk Ukraine jege waa Russie wala ku tudd Sébastien Coe nekk anglais euh, jege waa Amérique ak waa Canada waa France ak waa Espagne ak euh, waa Angleterre ak waa Allemagne donc te attaque bi mu ngi jóge ci Allemagne France ak Angleterre donc ñu xam ne am na lu ñu ci jublu te leneen gisuñu ko lu dul euh, présidence bi mm-hmm. mais lan moo tax nag euh, dëkk yi mag yooyu yëpp taxawoon comme ni candidat mais mbir mi teeree ji France ak sa papa nan la ñëwee nu mu ñëwee France wàcc fa ba ñu téye ko diggante boobu itam li ñu jot a dafa xaw a filmé daal. Ah, moo di ma la wax rek euh, xam kuy pexe dangay ngay wut euh, say complo da ngay am ñooy àndal nee la article bi ñu ngi ko tàmbalee ci benn journal bu nekk ca biir Angleterre loolu 2013 la. 2014 am na article bu ñu def ci Guardian benn anglais journal anglais mais même semaine bi ñu def benn article tamit ca l'équipe France donc mooy France bokk na ci te ki ko def mu ngi ci commission de presse président commission presse bi IAAF Sébastien Cola donc loolu ñu jublu woon mooy euh, ñoom am na lu leen France mën a jàppale xam naa ne dañoo seet ne siège IAAF ma nga Monaco ñu jëm ko fa déposer parce que ki euh, déposé affaire bi ci police monégasque plant benn employé français IAAF la mu tudd Essar Gabriel te mooy secrétaire général IAAF donc man jàpp naa ne dañ koo yëgoo. dañ ko yëgoo waaw loolu moom ci lu wér la léegi nag France. li tax mu joué ci rôle. ba ñu ne dañuy créé commission d' enquête le 16 décembre 2014. commission bi ñu ngi dem installé ko Lyon fi siège Interpol nekk lañ ko installé commission bi ñu ko composé am na benn policier allemand bu ci nekk bu nekkoon Interpol. comme par hasard mu jël Lyon comme siège bi donc jàpp naa ne ñu xarañ lañu ci liñ doon def ak lu ñu togg bu yàgg di ko doxal nànk-nànk la ñu njëkk nag yëgu ko ba moom gëm naa ne euh, daf ko bett mu dem France euh, loolu dal ko. nan la ñëwee France dañ ko dañ ko. comité olympique bi activité sportive la fa ñëw. waaw comité olympique bi euh, Denis Messeglia mooy président comité olympique France. moo invité ko moo ko invité. mu ñëw wàcc aéroport mu ñëw wàcc aéroport. Euh, wàcc aéroport rek. Ah. dem hôtel bi ñu ko réservé ba mu demee gis hôtel bi ak ni ñu ko teertoo. mu xaw ko jaaxal taxi ni ñu ko yónnee. taxi ah taxi ni ñu ko yónnee. taxi ci mu yegg si gis bu ndaw boo xam ne ay chambre yu am 16 mètres mu dugg ne mi fi mu fi dal man woo na ma sax téléphone ne yow xam ne dañu may font tubaab yi dañu invité nañ ma waaye euh, hôtel <laughs> dëgg yàlla ba ma nekk étudiant sax du ma fi dugg xanaa ma dellu fi ma tàmm dal rek hôtel Sheraton booru aéroport bi ba mu fa demee nag yegg si ba dugg si Euh, di sangu yeesal pour waajal euh, julli fay ay boru julle policier français fekk ko jël si ko yóbbu ko Nanterre alors loolu nag mooy lay wane ne donc euh, gëm naa ne ak près quatre ans et demi d' enquête ba ñu ma gisee man dossier bi gis ni mu demee ma xam ne lii yëpp traquenard la woon piège la dañ ko lalal ay pexe pour mu mën ko jàpp. say avocat ñoo leen ne bul dem wala parce que ñu bëree bëri bon Sénégal lañ nekk ah, nga baal ma mais dañ naan waaw papaam ak li ko dal lan la masata di def Sénégal lu tax du fa dem et cetera. mais li li wax naa ko ay yooni yoon te sama avocat Maître Moussa Sall maa ngi koy gërëm sax euh, taxawoon na ma si bu baax leeral na ko bi njëkk mooy ñii ne dañ yóbbu plainte bi France seen rapport bi ñu doon def commission d' enquête bi jeexul ndax <laughs> ñu ngi ko déposé le 4 août 2000. 15. Euh, waaye seen rapport nga jeex le 9 novembre. donc dañu xaar ba ñu jàpp la ñu jàpp ñu soogee génne seen rapport. ba pare ci seen rapport ñu sukkandiku ci éléments yi enquête pénale française bi di def instruction bi ngi soogee tàmbali. da soo deeguñu ñu jël élément yooyu dugal ko seen kii donc loolu mooy première raison bi tax demuma rapport boobu ñi ko doon def du rapport contradictoire ndax rapport d' enquête suñu lay euh, yekk dara dañ lay bind ne la ah. lii dee wax nañu ñu ko ci yow wala jox nañu ñu telle pièce ana loo ciy tontu noonu la commission d'enquête indépendant di liggéey commission boobu mënut a dégg ko fi anaan say fàttaliku dafa nañ ko benn commission d'enquête ba Paul Volcker jiite woon ba ñu naan doom ji COTEC naa lay liggéey dañ ko jox contrat ndax Nations Unies jox euh, contrat pour pétrole en Irak ak euh, programme nourriture bi ba tuuma gi mais tuuma gi benn commission d'enquête indépendante commission bi ki ko jiite. moo doon président AMA Richard William Pam man xam naa ko bu baax membre de CIO la mooy doyen d'âge CIO moo fa dugg 1978 avocat canadien la xam na sama pap bu baax ki jiite AMA anglais la mu tudd Craig Reddy te gis ñëpp gis nañ ko mu ànd ak Sébastien ko di tambambaalu ci àdduna bi. di campagne di campagne pour moom. donc pour man lu concerté la te ñoom ñoo déposé plainte bi alors donc moo tax ma ne du ma wuy ji parce que ñii may enquête. seen enquête matul ñaareel bi liñ ñuy yekk du loo xam ne nee nañu am na France nee nañu Russie la amee ñu ne Singapour la amee ñu ne euh, kii la ame euh, nu ñu koy wooyee euh, Monaco ñu ne Qatar ñu naan Japon ñu naan Suisse ay dëkk yoo xam ne yoonu France nekku ci man leen man nag du ma wuy ji dëkk boo xam ne dëkkuma fa du ma citoyen français aw ma fa société aw ma fa compte bancaire liggéeyuma fa benn société liggéeyuma fa benn homme d'affaires liggéeyuma comité olympique liggéeyuma fédération bi kon nag alum def kon nag loolu tax ma bañ ñi li jaaxal gaa ñi mooy euh, muy tribinal bi àttekat bi euh, procureur financier bi euh, la patronne de de l'Interpol la française la Mireille Balestrazi mi ñooñu ñëpp nekk ay ay ay français te te te te mbir mi du France loolu tam jaaxal na ñu bëree bëri lu tax affaire bi nekkul Russie ñooñu ñu tuumaal ñu porte plainte wax nekkul Monaco loolu tam dafa lan moo xew wala dafa am ay noodi. ah man daal li ma jàpp mooy France. Hmm. dañoo soxla woon Sébastien Coe. Hmm. dañoo soxla woon Richard Pound doyen de CIO avocat canadien la dañoo soxla Craig Reedy moo doon vice président CIO di président AMA ndax sa fàttali ko France da doon xëccoo pour Jeux olympiques. Euh, xëccoo na pour deux mille vingt quatre xëccoo na ko juróomi yoon. bi njëkk 92 dañoo perte contre Barcelone. ñu xëccoo ko 2004 Lille perte contre Athènes ñu xëccoo ko 2008 contre Pékin ñu xëccoo ko 2012 perte contre Londres donc bi mu noonu juróomi yoon bi France di xëccoo Jeux olympiques te daf la ñoraloon ndax 2024 sa fàttali ko ne France moo organisé premier Jeux olympiques yi en 1924 France dañoo bëggoon def centenaire bi. donc mais xanaa ñoom dañu jàpp ne kon yow euh, président Lamine Diack ak yéen da ngeen leen doon sot da ngeen gën a neexoo que euh, les Russes wala lu tax ñu singali leen ko. mais Fona Russie moom li wóor boo wóor mooy li ñu nekk xarit ci Russie neexul dëkk yooyu parce que Russie Poutine sama xaritu papa benn bakken la euh, ñaareel bi man mi am naa fa sponsor depuis 2007 dama fay dem. maa maa fa njëkk indi contrat fédération internationale ak benn société bu de VTB benn banque donc euh, am na championnat yu mag yu ñu fa defoon 2013 ñoom nag. dañoo nekkoon ci xeex boo xam ne xeexu géopolitique la affaire Ukraine bi fàtte nga ne François Hollande am na ay euh, bateau frégate yu Russie commandé woon France mhm. dañ ko rompre dagg ko ne duñu leen ko ñu ne tamit position bi Russie jël ci Syrie dañ koy xeex ndax neexu leen ndax ñoo jàppale régime mhm. syrien bi donc am na lu bari li tax ñuy kii loolu sport affaire sport mais dañoo mere Russie ak Qatar da ngay xam ne Angleterre mhm. moom xëccoo Euh, coupe du monde 2018 te moo yor championnat bi gën a mag bi ëpp xaalis première ligue dañoo perte deux voix la ñu am ba ñuy xëccoog te affaire corruption li lañ dugaloon ca jamono jooju benn documentaire lañ def veille comité exécutif FIFA bi. loolu tax ñu jàppal leen mer. ñu ne FIFA jàppal leen mer euh, deux membres FIFA ñoo voté. mais mais mais si gestion wu sa papa di président Lamine Diack. Hmm. dañuy dégg ne euh, tax na ba am na ay pays asiatiques yoo xam ni grâce au vieux dugal nañ leen. ci biir euh, wàllum athlétisme CIO et cetera et cetera yorin gu baax la lim mu fa indi ci xaalis avant moo ñëw ak léegi bokkul des centaines de milliards malgré loolu ngeen wax noonu yëpp mais ñoom dañoo jàpp ne yorinam gi daal dafa lëndëm. ah léegi nag euh, li koy indi da koy xam. mille 2001 benn société bu mag bu tuddoon ISL marketing nekk Suisse moo yoroon euh, droit mar agence marketing wu IAAF. waaw dafa fayit benn agence japonaise bu tuddoon den su ñoo jël ko. agent japonaise bi ay client japonais donc la am 2006 damaa toog nekk championnat d'Afrique ca Île Maurice su ma fekk ma foofu ne ma yow dañu am commission marketing Pékin doo ñëw ñu ànd ndax nga mën ñoo jàppale wax ak ñun pour seet naka la ñu mën fexe ba doo ñu am sponsor yu japonais rek ñu am yeneen sponsor yu du japonais man la ma ne ah bismillah kon ma ànd ak moom Pékin ba ma ñëwee fekk la ñu toog ñu réunion naan ah suñu ay sponsor japonais rek la ñu am est-ce que mënuñu seet fan la ñu mën a am yeneen sponsor mm-hmm. comme yow am nga ci xariñ yaa ngi ci football bi. mais nag mën nga ñëw mën nañu jàppale. moment boobu man may agent fédération sénégalaise de football. man leen baax na man daal fenn laa mën a jàppale mooy dëkk yi nga xam ne moom la ñuy wooyee les pays émergents mooy dëkk yi nga xam ne ñu ngi soqaliku. ci année 2000 yi dëkk yu mel ni Brésil Russie Chine Inde Corée du Sud ay Mexique ay Turquie ay Argentine ak pays Caraïbes bi ak Afrique du Sud man leen dëkk yooyu moom mun naa leen fa jàppale wax dëgg yàlla. kuréel bi sama papa jiite nag kuréel bi 215 pays la ñaar ñaar téeméer dëkk a fukk ak juróom waaye juróom-ñeenti dëkk yooyu la ñu mën ne Massata est-ce lu sa pexe ci dëkk yooyu man leen nangeen ngeen may jox mandat ak ñii toog ci réunion bi am na ay kilifa yu fi bokk yoo xam ne mën nañoo war a mën a dem ci seen dëkk ubbil ma bunt ma wan leen li ñuy jaay athlétisme ndax man mës naa koo jaay man sama njaayum athlétisme du gulet 1990 ba 1996 maa ngi woon ci benn société bu nekk Suisse bu tudd ISL marketing foofu laa jàngee ba sama alluwa mokk daaw naa jaay athlétisme daaw naa jaay daa daaw naa jaay football ba mu fa jógee ca laa créé Pamodzi Afrique du Sud en avril 97 donc bien que maa ngi ci football mais am naa cosaan ci athlétisme en 89 ba ma soogee pare jàng defoon naa deux mois stage siège IAAF ca Londres ak ku tudd euh, John Holt moom secrétaire général liggéey naa fa ci département compétition et marketing. li nga doon lu ma xam la. d'accord du du luñ ma jox. ndax sama papa mooy kilifa gi. d'accord mais mais mais lu ma xam la. loo xam la mais mais sa papa ci tribunal bi am na foo xam ne yéen ñaar da ngeen fa da ngeen da ngeen fa waroo bokkoo leen fa ay ay ay lu ngeen wax. mais xam nga ma ma terminé ci liggéey bi. li tax indi société yooyu. bañ ma dugalee ci loolu ci 2006. ci saa si dama commencé indi ay sponsor hmm. diggante 2007 laa signé contrat ak ñoom ak 2010 rek indi naa ñeenti ñeenti sponsor yoo xam ne presque indi nañu 45 millions de dollars. muy tolloog presque vingt cinq milliards CFA ah góor gi ne ma waaye sax yow yéex ngaa ñëw foog nga ñëw jàpp ci euh, gars yi nag euh, moment boobu gisuñu leneen lu dul ma indi leen sponsor mën na am foofu la waroon laajte ne leen comme maa ngi liggéey sama doom dama bëgg kuréel bi ñu def résolution ci comité exécutif bi ne li may employé sama doom d'accord ngeen ci peut que foofu def na erreur mënoon na demander ginnaaw contrat consultance bi ma signal ñu def benn contrat ñu def benn résolution. Mhm. ci conseil bi loolu jàpp naa ne mën na am pour moom. Euh, garaaw léegi nag gëm naa ne tubaab bi ñu ngi ñuy seetaan ñuy liggéey waaye xam naa ñu naan bés bu ñu ko bëggee jekku. fii la ñuy jaar fii la ñuy jaar xam na ñu nga gisee ñu fi doxale loolu la ñu xalaatoo leen woon loolu. mënuñu ko xalaat parce que monde du sport moom loolu daf cee bari. Mhm. da ngay gis ku bari koo xam ne suy liggéey day jël jabaram mhm. wala doomam ñu koy jàppale parce que sport moom yëfu bénévole la kenn du la fay. Lamine Diack loo ciy gis dégg-dégg turam mook Blatter bokkuñu app sa Blatter dañ koy fay salaire lu 3 millions de francs suisse presque 1 milliard 200 pour muy liggéey 100 millions weer wu nekk Lamine Diack moom loolu fekk ko ci ñu ngi koy jox per diem wu 600 dollars donc bokkul donc bénévolat la léegi nag. mais yow li nga nekkoon du bénévolat. man yow da nga amoon consultance la euh, dañu ma doon fay. 900 ah. dollars la ñu commencé ba 1200 dollars par jour. mais nee nañ léegi léegi. léegi nag euh, ma indi waaye ñeenti at liggéey naa ak moom mu ne ma du ma la fay commission mu bañ léegi nag dama mujjee waxanteeg membre de commission exécutive ne leen nag dafa la nag maa ngi bàyyi sama njaboot fële Sénégal di wër adduna bi pour indi leen sponsor nga ne doonal ma fay commission fo la ma demal ñu ne ma ah wax dëgg yàlla ci la ma ne bon léegi nag comme indi nga Samsung indi nga Sinopec indi nga VTB indi nga ñetti sponsor xam ma fay la 125 millions benn montant jeex na forfaitaire ma ne ko d'accord naa loolu nag yëpp lu ñu def ci budget IAAF la lu ñu certifié la secrétaire général bi signé ko directeur financier bi signé ko ñu yónnee ko ci compte bancaire loolu ñu la jox xobet xobet. mais mais lu xobet xobet waaw loolu moom lu officiel la. voilà yeneen dëkk yi nga xam ne dañ ne dañoo kontaan ci Masata doon ko may ba ci tudd ay montre diamant or et cetera liir nañ fi lu ne léegi est-ce que loolu nekkul ne nag moom la ñenn ñi jàppee guerre. may ah, may déedéet euh, xam naa ne Qatar la ñuy wax daan damay gis ne Qatar da Masata dafa am. Euh, Euh, daal ay contrat te buur bi dafa directeur cabinet buur bi day seq ak moom ay email ak yooyu mais loolu su ma la waxee Ameth ne euh, ñi ko joxe ci sama cabinet pap lañ jóge information yooyu ci samay mbokk lañ jóge say mbokk yow samay mbokk ah <laughs> ñoo joxe information yi anglais yi pour ñu bind ci man non say mbokk ñuy liggéey sa papa mais pas say mbokk de sang dama ne samay mbokk de sang bokk nañ ci ak sama ay membre du cabinet pap ñoo bind loolu ñoo ñoo jox anglais information boobu. ah bon alors que man Qatar maa ngi fay liggéey depuis quatre-vingt-quinze. buuru Qatar maa ko présenté sama papa 2001 ki nekkoon buuru Qatar Cheikh Ahmad bin Khalifa Al mhm. man maa ko wane ak sama papa. maa ngi liggéey Qatar depuis 1995 football moom fa yóbbu woon coupe du monde FIFA junior. Mhm. ma def 6 mois Qatar dafa liggéey ndekete ki nekk ministre de la défense nekk prince héritier moo nar a doon papam ci ci poste émir bi alors fay liggéey. Cheikh Ahmad nag sama wëllëre la bu yàgg may na may ay oto saa yu ma demee mu may ma montre mais man seq naa man lu nekk defal la ma teraanga bu nekk man tamit. mooy buur ba quoi ma jàppale leen ci seen bëgg-bëgg nekk asmaatul riyaada ndax ñoom dañ ma ne dañoo bëgg ne la capitale du mondial du sport boobu ma ko buur bi di wax 1996 loolu boobu ma ngi koy wutal sponsoring pour benn tournoi tennis donc yooyu. mais sa mbokk yi ban intérêt ban intérêt. ah peut-être par jalousie peut par jalousie. loolu laa ko jàppee ak sama kuréel sama kuréel papa dama jàpp ba ñu may dugal foofu seen tuuju ne danaa mën a yegg yegg foofu danaa mën a indi loolu Ahmed su ma la waxee ne sama papa juróom-ñetti at yi ñuy liggéey lu tolloog téeméeri milliards ak ñaar fukk ak ñaar fukk dugal naa ko fa cent vingt cent vingt milliards dugal naa ko fa commission bi ñu may fay diggante cinq pour cent ak huit pour cent yenn contrat yi yenn contrat yi ñu fay ma quinze pour cent xanaa loolu wax dëgg yàlla war naa am lu ma dundee solo ma ñu may ger hmm. indi maanaam démarré sa waxtaan fa ay euh, négociation ba mu sotti ñu fay ma sama commission per diem su ma tukkee dama mission dañ may jox neuf cent dollars ba mille deux cent dollars par par euh, euh, jour mais coo mais coo li moom moo tax daal maanaam ñu bloqué say compte mënatoo tukki wala non non enquête pénale française bi la parce que enquête pénale française mais France rek nga mënul dem dañu def dañu def benn mandat d'arrêt international hmm. léegi nag su ma demoon si beneen dëkk bon ba pare en dehors de sax dañu am instruction bu ñu ubbi fii Sénégal ba ba affaire yi bi bare diggante novembre deux mille euh, quinze. Mm-hmm. ak décembre dégg nga fi coow bi fi indi woon ak yenn article Le Monde yi. Mm-hmm. Sénégal 17 février 2016 la ubbi benn enquête ñu déglu ma sûreté urbaine juróom-ñetti waxtu. ba ñu ma mm-hmm. dégloo nag ca la ñu ma demande ma ñëw euh, euh, ci juge bi mu tey sama passeport tey samay kat na ma nag mënoo tukki yaa ngi si contrôle judiciaire. Euh, ci lañ ma nag li ñu mënoon toppee France yëpp ñu ko toppee Zimbabwe ñu toppee ma ko fi donc nag enquête booboo tax mënu mënu ma bouger mënu ma dem fenn. mais dañu gis ne euh, état wu France. Mhm. dafa jàppale bon entre guillemets noonu la ñu ko mën a jàppee jàppe mhm. comme si tamit ay ñoom Blatter ak ñoom Platini mais est-ce que nguuru Sénégal gi tam jàppale bi war ci doomam. boo déggee ma ne la jàppale du joxe xaalis du dara mais taxawu côté justice est-ce que def nañ ko. gouvernement loolu wax dëgg yàlla man ni ma gisee procédure bi ni ñu ko respecté mooy déglu la enquête ci sûreté urbaine euh, déglu la euh, ci des juges notifier la say infraction ne la ñu ngi lay topp indil ñu tel document tel document mettre à disposition sa numéro compte bancaire yi nga am yëpp. te lépp loo xam ne yoon laaj na ko topp nañ ma ci ndimu mu yelloo. donc man lu fekkee loolu lay jàppale moom respecté nañu samay droit sama papa nag la fa xewoon xaw ma ko ba ma gisee dossier bi laa gis ne ambassadeur bi wax dëgg yàlla Bassirou Sène la tudd na foog na ak ku tudd euh, Diallo consul bi ñëw nañu ko taxaw mais ñu ngi ko jàpp bésu dimanche góor gi téye nañu ko jet fan weer di wax toog juróom benn ci benn euh, foofu violon ca euh, Nanterre ca commissariat Nanterre di ko xot ñoo ñool pour laaj ko boobu dimanche la mënul jot kenn mënul jot euh, euh, njaboot mënul jot kenn pour mën ko taxaw sama benn heureusement sama mag nekkoon foofu France. ci hôtel ci commissariat. commissariat bu nekk Nanterre. teg ko fa nii. tey nañ ko fa ca violon yi pendant presque 36 heures bañ koy interroger ba li ñu may dégg wax yooyu muy wax mais presque 22 heures et demi 22 heures ci guddi lañ koy interviewé. d' mais euh, président nag ñu dellu si waat tuuti jóge l'international ñëw fii. Hmm. lenn li wax mooy xaalisu russe boobu nag da ngeen cee jàppale yéen opposition Sénégal en 2012. ñoom président Macky coow yi fi doon am Y'en a marre Lamine Diack moo newoon ci ginnaaw ak assise nationale yi ngeen bokkoon tax ba mënoo leen a set loolu tamit. Euh, est-ce ah, mais loolu man ba ma ko déggee ban wax dëgg yàlla daf ma jaaxal parce que wax dëgg yàlla sama papa ak activité politique am. Mhm. man xaw ma ci lu bari. am na lu ma jot a xam ba mu ko nekkee ndax nekkoon na 19 ans nekkoon na maire de mais ba ma déggee ñu naan day jàppale assise national bon dégg naa ko mosuma fekkee fu muy réunion mosul dem réunion ma master lii laa fa waxtaan ci réunion bi wala lii ak li ma. mais nga woon ci assise quand même. ma membre assise la woon loolu laa dégg man na ma ko mais man mosuma toppatoo ak sama activité développement ma joo xam ne la kilifa la suy réunion biir wala këram ak ay kilifa man du ma ko fekkee donc ba ma ko déggee ci procès verbal bi ak yooyu ñu naan dafa doon jàppale opposition bi dafa ma bett mais am na sa benn ah. collègue bu ñëw fii laaj ma. question bi ne ma est-ce nga bokk ci ay financement ay opposition fii mu ne ko man mosuma si bokk. musuma recevoir xaalis bu ñu naan euh, pour jàppale euh, euh, ay opposition la musuma rencontre leader opposition musuma fekk sama papa réunion politique am ba pare samay compte société wala samay kii man li ma seq ak Russie benn contrat sponsor la day jaar ci benn banque banque bi banque française la gëstu ko lu yomb la parce que chaque février la ñu may fay sama. mais mais assises moom nangu nga ne ña fa nekkoon ñëpp. ils étaient pour le départ de Wade. mais dama ne sama papa ak Ablaye Wade li leen féewale affaire Stade Assane Diouf la. loolu loolu ma am na sax lu ma ci xam parce que 2007 Karim Wade ak ba Abdoulaye Baldé en plein congrès confédération africaine bi ñu amoon méridien président woo ma mhm. ne ma Massata euh, foog nga dox sa papa ak président Guissé ndax euh, pa bi ma nga ma nga woon fan euh, fanaa Touba ma ngay ñëw sa gisee Abdoulaye Baldé nga laaj ko mu woo ma parce que ma Karim ne ma nag foog ñu gisee ndax affaire stade Assane Diouf bi ah bon ma wax ko góor gi góor gi interrompre congrès confédération dem ñu ànd présidence Euh, ba ci salle d'audience bi euh, Lamine Faye recevoir ñu ñu toog ci salle d'audience bi am naa dégg naa benn homme d'affaires sax damay bañ tudd turam <laughs> mais mu naan fekkee na fu sama papa ak Abdoulaye Wade di waxee ci ba mu ko dégg naa yaa ngi financé ay opposition ak yow ak sa doom activité yi ngeen di def yëg naa yëpp ay ay waxu kaso kaso la nañu waxante dëgg Abdoulaye Wade yóbbu sama papa ba koy euh, recevoir di teg ay om d'affaires ak kii ba muy recevoir sama papa kenn moo fa mën nekk muy Souleymane Ndéné Ndiaye directeur de cabinet loolu man fekkee naa ko parce que Assane Assane Diouf bi coow bu mag moo ci amoon te sa mbàpp waa rëbës la jël ci position ma ne duñ duñ tot stade bi alors jàpp naa ne seen euh, diggante fa la xaw a yàqoo mais man su ma yëgoon ne tey sama papa day xeex Ablaye Wade man maa ngi njëkk dox ba ba doom lu tax parce que ay mbokk lañu. Ablaye ah. Assane euh, euh, Ahmed daan la wax tey lu kenn xamul Sénégalais yi peut être 92 pour cent xamuñu Ablaye Wade ak Lamine Diack lu ñu seq Ablaye ki ko jur moo tolluwaat Meysa Wade di wéy juram. mais moo sama maam Aminata Wade ku sama maam Seydou Diack ak sama maam Ibrahima Diack Bibi Lamine Diack ñoo bokk ñoo bokk ndey ak baay bokk dëkk ca Waalo ndey ak baay Maysa Wade ak Aminata bi jur sama maam Seydou Diack ñoo bokk ñoo bokk ndey ak baay sa demee laajtal euh, am na ab Abdoulaye bu tudd Sodo Fall nga laaj ko man sama diggante ak Abdoulaye Baldé ñëpp ko xam <laughs> mon secrétaire général présidence euh, su doon dem campagne mairie Ziguinchor <coughs> léeg-léeg ñu ànd sax euh, jàppale Casa Sport nekk hôtel Kañaan du Mbañ sama diggante si njëriñ Wade ci lion du Sénégal yi mu ñëpp ko xam man Ablaye Wade heure bu ma neex gis ko Cheikh Ahmed Tidiane Sy bi nekkoon directeur euh, garde de Sceaux ministre de la justice ministre de l' intérieur sama goro akkan la bañ may jël agent marketing moo woo Joseph Ndong ne leen maa ngi leen boole ak sama benn jarbaat mu jàppale leen ci wutu sponsor wool suuri mu ñu recevoir ko mu def leen présentation mu jàppale leen ci sponsor moom Cheikh Tidiane Sy mu ngi may dégg. donc euh, euh, ñi ma xam ñëpp xam nañ ma. ak waa Kër Abdoulaye Wade ak euh, Kër euh, su ma xamoon ne daf ñu am animosité politique mais man maay dox sama du am su ma ko xamoon mais nag. Ah, xam naa ko. mais man loolu. Hmm? dégg naa sama papa sama papa su ñoom euh, limeeg yooyu sax dañ leen mujj mere. loolu dégg naa ko en en 2009. ngeen jàppale waat ngeen jàppale waat ngeen jàppale waat day jàppale Khalifa Sall. dama ne. yooyu yooyu man dégg naa ko. sam papa suy def activité politique am kenn du ko yëg du kenn du ko xam ne déjà mu nga nekk a ko man sama liggéey damay tukki xalifa Sall man su xaw Khalifa Sall Khalifa Sall socialiste la man mosuma nekk socialiste man man tey su ma ko nee la wax la man suñu kër si fukki doom ak ñeent yi sama papa am. mais man ñëpp xam nañ ne euh, libéral la capitaliste pur et dur la Abdoulaye Wade <laughs> heure nee naa la heure mu ko. mais c'est pas moom nag euh, avion présidentiel ñu ngi gis moo ñu ko jox. Maxime Ndiaye ñoo intervention bu ñu jox avion bu beesoon dàq boobu. mais nangu nga ne sa papa socialiste la. yow même de bu dee libéral nga. ma dama ne mais mais nag activité politique am. moom lay concerné. man man mënu ma ci mënu ma ci mënu ma ci dégg di ci wax bay dox sax ñu naan maa ngi wuti financement pour euh, ñu xeex Abdoulaye Wade mais kooku euh, même moom su ko ko waxoon danaan ah master <laughs> bu la ko seeti ndax xaritu Balde la. wala xaritu euh, suñu jëli la wala euh, ci nguuru PDS bi ñu bari na fay wëllëre ay wëllëre donc la fa am te nag du ma leen yéene ba pare ni ma la wax sànq ay mbokk lañu dama ne su ma ko déggoon góor gi Moustapha Wade saa yu ma dayeen rek moom danaan ma ah yoo xam nga lu ñu bokk wax ma ko ma ne ko déedéet am nga solo fàtte sama yaay ki ki sama maamu yaay sama maam Koné Diène Wade hmm. ak mère Aminata Wade boobu ñoo bokk ñoo bokk ndey ak am naa sama côté yaay mbokk Ablaye Wade lañu sama maam euh, Khady Sow yére canu <laughs> góor gi moto la waat dañ ko doon sedd donc munu munu ma fexe munu ma dégg munu ma ko woon concevoir moo tax dama toog weddi ko dama toog fii carrément daf interview ne leen loolu ay daal di koy ay waxu kasa kasa mais est-ce que euh, gis nga ci ñenn ñi daal maanaam soutien ah déedéet tey su ma gisee position bi groupe GFM di jël di di ñu attaqué daf may bett damay tiit carrément ci ne ah xanaa du kii moo ci sama papa lamb wala indi woon ay kaaram pour sama bàpp tuddee ko wala inauguration groupe GFM bett na ma vraiment bett na ma euh, venant de leur groupe mais comme nee nañu c' groupe indépendant de presse. Hmm. lu leen neex bind mais gaw ma woon ne ay attaque dana juge euh, de ñoom. loolu moom foogee foogee ma ko woon a ah, respect bi ma gis ne amoon nag pour sama papa de bett na ma trop waaw. waaw ah, bett la mais mais nag sa papa aussi ci biir waxam am na luñ ko woon ba mu ne Massata de bu dee lii moom la def daal def na yëfu nangam. ah waaw dégg naa ñu koy wax ñu naan ñu fa wuyu. waaw waaw effectivement non mën nga ko wax. mën nga ko wax euh, mais Simon Ndiaye avocat am leeral na ko nee nañu dañ ko présenté benn email. ci email bi ñu bind ne Massata dafa jox ay nit dafa ger ay nit pour ñu noppi mu ne leen su fekkee ne Massata li ñuy wax ni dëgg la ne moom moo ko def yëfu wëyu la nee nañu loolu sama papa wax euh, avocat am leeral na ko mais gëwuma ne sama papa dina ma traité de voyou ndax moo moo ma embauché. <laughs> pour ma liggéey ak pour moom donc euh, mënul embauché wuyu te xam na ma xam na ma du ma ca ne man taalibi mu ah ak ah, xan la du duma ma foyee ay mbiru ger ay mbiru caaxaan du ma sàcc du ma fen du ma liggéey laa gëm ba pare dama dama nekk nit koo xam ne dama mës dëggu ci li may def euh, du ma du ma fonto kenn yebu ma ci li may liggéey monde bi ñëpp xam nañ ma dëkk yi ma mës a dem yëpp su foo dem mën naa fa dellu ah aw ma <laughs> benn dëkk moo am sens ba pare dama dox digganteem ak kilifa yu bari muy Japon muy Qatar muy Russie muy Inde muy fu ma mën di dem ci àdduna su ma xamee kilifa wala xam euh, PDG Samsung dem naa ba toogoo moom xam ko ne sam bàpp kaa ñu ànd seeti ko ndax euh, Samsung mën nañu amal njëriñ mu ngi nii donc man dama mës nekk nit koo xam ne wax dëgg yàlla sama rapport ak sama papa moom rapport professionnel am na. mais rapport tamit vraiment euh, de respect moo mës a am ak man donc bu ma déggee yooyu dama naan ah xam naa ne presse bi euh, dafa am ñu leen di fay pour ñu xam ba jéem a indi jaxasoo si sama diggante ak sama papa alors que loolu mënta nekk. loolu mënta nekk man moom mooy sama kilifa. Hmm. ci saayir waaye tamit ci liggéey mooy sama kilifa moom ma <laughs> moom ma jox instruction ne ma defal lii ma def li ngay liggéey donc musuma def loo xam ne yëgu ko musuma dox ci loo xam ne euh, yëgu d' accord wax nga ko sa biir wax macha allah moom njaboon na euh, euh, léegi nag euh, say doomu baay ak say mbokk ak yooyu yow Pape Massata Diack yow yaa doon liggéey góor gi tey lii nii yow wàcc ci kaw mënu fi ñëw des années ku am juróom-ñett fukki lu teg bon nga nekk fii mënoo dem ci moom mënul ñëw ci ay sëtam loolu ci biir famille bi noo ko noo ko dundee ak ñoom. mais je pense que euh, au début dégg naa ci lu nekk Ahmed dégg naa ci lu nekk ay Masta si dugal sam papa Masta dafa lii Euh, gëm naa ne say mbokk yow wala nit ñi nii ah, rek fépp fu ne <laughs> seen njaboot gépp ci ay xaritam Jeune Afrique ñëw nañu fa sax di ma interview ñoo ne ma nee nañu su papa su ko lii dalee yow yaa tax ma leen ah bon ah kon ne yéen bon d' abord euh, nit de nangu dogalu yàlla parce que tamit euh, loo ñu mënti wax mën na am pexe doomu aadama am na ci. gis ñu anglais seen campagne présidentielle bi ni ñu ko tëggee pour compléter ñu kii wax naa ci seen ay confrères. Mm-hmm. rôle bi ci ni Davis. joué nga xam ne moom secrétaire général adjoint IAAF. wax naa la tout de suite Essar Gabriel bi doon secrétaire général IAAF wax naa la lu bari mais dama dem ba gisoon ne nit ñi dañu loo pour jéem a yàqal Massata naa la information bi ma jox si Qatar naan Qatar dañu mënoon may ay montarga dañu mënoon defal ak lii yëg yooyu mais sama ay mbokk ko joxe ak sama sama ah. membre cabinet Pape ñoo joxe ah, information bi à des journalistes anglais pour ñu bind contre man mais à quelle fin par jalousie pour man jalousie ak jéem a yàq ne Massata peut-être que sama papa su fa jógee dana continuer liggéey ak waa IAAF. mais dama jàpp mais mais continuer liggéey ak ñoom ñoom seen intérêt la yow say mbokk. mais man dama ne. rawatina euh, ñi nga bokkal ñi nga bokkal deret. Euh, rawatina ñoom euh, Ahmed. Ah. adduna dafa ne. teraanga su bëree noonu bëri. loolu loolay adduna. mais adduna sa gisee sa gisee sa gisee sa gisee même mais mais kuréel bi sama papa jiite ñoom laay gën a amal njëriñ ñoom ay xeex te loolu ma indi ñoom amuñ ci pexe. dëkk yi ma dem wuti wuti ko fa ay pays impénétrable Chine xam nga ne foofu parti communiste moo fay dox Russie euh, xam nga ne lépp ci kaw lay jóge ci Kremlin bi donc fexe ba am fa sponsor yombul Corée du Sud euh, am fa sponsor bu mel ni Samsung yombul donc euh, man daanaka gëm naa ne par simplement xam nga dafa bari manipulation trahison yu am ci Euh, affaire succession sama papa sama papa daal succession dafa nekk succession boo xam ne. j'ai l'impression que bi dafa ngandoon dafa ngandoon mais man xo man daw daw ma sax def attention daaw pour man moo tax mosuma porter plainte parce que ba ma demee ba ci biir ba gis yenn déclaration yi moo ko gis rapport ama ne sama ay mbokk ñoo ko def dama tiit. say mbokk ah page 34 rapport avant dama gis ne ñu naan Jeux olympiques sama benn xarit rakk nee na Jeux olympiques de Istanbul Lamine Diack jàppalewul Istanbul parce que benn sponsor japonais dafa dafa fay pour Diamond lig bi mais dama tiit. sa benn rakk. sama rakk ko ma fekk ñu ko enregistré ma mu jaaxal ma ma dem ci sport show ARD Allemagne yi gis ñu bind yu mel noonu. bind yu yu doy yu doy waar naan ma sa sa sa sa alors ma ne bon dafa naan kon nag mënuma porter plainte naa naa ba xam enquête bi. fan lay mujjee fan lay mujjee ak li ñuy wax yëpp fu ñu ko jëlee waaw ci laa soogay génne na da tey naa tontu parce que léegi élément factuel yi. Hmm. Moussa Sarr défendre na ma sur tous les plateaux de télé de télévision dooy na ma sëkk. Hmm. mën na ma défendre mën na ma kii gis nga. ku ku xarañ la gis nañu ci euh, mu doxalee affaire imam Ndaw bi. Hmm. ak procès yi mu def yëpp ak. Euh, cause juridique yi mu jàppale donc doy na ma sëkk mais dafa am ay éléments factuels yoo xam ne mënu ko wax. gis naa si benn plateau. Ah. ñu koy jéem a poser question man ak sama <laughs> benn plateau télévision. waaw ah. di ko jéem a coincé naan ko est-ce que placé quoi quel quel est le problème entre Lamine Diack et son fils y a problème Lamine Diack ñetti infraction yi ñu koy toppee ah su su ci setee ma set parce que <laughs> on est lié <laughs> dañ ne corruption passive dafa recevoir xaalis de Russie dañ ne corruption active dañu doon fay ay dañ ne def ay détournement de recette de sponsoring mais soo ciy setee ma set ci. te man maa ko mën a jox ay élément d'ordre sama avocat yi bu ñu ñëwee ca euh, tribunal ba Paris dañoo wax lu leer nañ gisuñu fa virement bu ñëw ci compte Massa Diack gisuñu fa film bu ñuy wane fu ñuy joxee Massa Diack xaalis gisuñu fa dara loo xam ne mën na indi euh, indice ci li ñu français yi di toppee boobu ak tey te suñ ko amoon ba ma defee compte rendu commission rogatoire internationale bu ñu fi ñëwee. dossier yi ngay gis yëpp jox jox naa la dossier yi ma la woon yëpp yo yónnee naa leen ko exploité wuñ ci benn dañ ko jël teg fële intéressé wu leen xam leen intéressé ah jéem a indi tuuma te dama jàpp ne ku bari wax da fekk nekkoo ci dëgg parce que nekk ci dëgg moom doo wax da ngay jël sa preuve dam taxaw génnee ko dugal mu daanoo ok mais ni nga waxee nii euh, que sans Pape Massata Diack vous souffrez mais am nga la metti euh, au début mais léegi jàll na ndax xam naa motivation yi nekkoon ci ginnaaw yëpp. malgré pas banque ba tey mënul ñëw ba man pas bi moom euh, yàlla mu ci loxo yàlla pour man parce que damay na nangu dogalu yàlla ndax su doon pexeem su doon jëfam rek la du fa yàgg su doon tamit ay pexeem wala ay nitam yu ko xam ci ni mu gérer IAAF pendant seize ans parce que géré na ko géré gestion bu baax. ndax ñu moo tax fal nañ ko ñeenti yoon dafa ñeenti mandat yi ñuy wax na ay dañu détourné ay xaalis sponsor mënul nekk fédération boo xam ne comptes yi ñu ci ay banque yu ñu contrôlé comptes yi dañu koy certifié di ko audité ñu falaat ko président euh, pour ay mandat quatre mais simplement dama gis ne wax dëgg yàlla su dee ci li ma gis ci dossier rek. tuuti ma ci mën na ci génn na ci génn léegi nag. léegi ñu ngi doon nag du ñu bëgg jaay doole. wala ñoom dañoo ñëkk. mais procureur yi li ñu wax nag dafa diis de. Ah. ay milliards ngay dégga ak. ah waaw loolu loolu loolu ñu am yéene waaye day fekk ñu mën ko prouver droit pénal nag dafa nekk droit boo xam ne ni ma ko Moussa Sarr expliqué da ngay indi preuve <laughs> doo wax rek ay soupçon de. soupçon de romb xalaat nga ne daal mën na cee génn. ba dama ne. ak yow ci li ma gis de. Hmm. ci dossier bi. Hmm. waaw su fekkee ne appliqué nañu liy droit mooy indi preuve teg. amul lu ñu mën a teg daal. sa diggante ak euh, kuréel googu di ko jàppale fii le comité boobu nga xam ne mooy soutenir le président Lamine Diack. bon man nag du ma leen gis euh, benn yoon laa leen mës a gis. Hmm. rencontre leen euh, c'est c'est vraiment dommage parce que am dégg naa ñu def ay positions ak ay déclarations yu bari malheureusement sans xam le fond de l'affaire. Hmm. mais moom boobu tamit woon wax parce que xaw ma lu nekk ci dossier pénal bi léegi nag xam naa ko liir naa ko moo tax may réagir léegi. Hmm. parce que dama gis ne yu ci bari ay manipulation ak beaucoup de trahison ak beaucoup de jalousie beaucoup de ay sos ay fen mu ne bon defal nag am na loo xam ne jot na ñu leeral ko bon les collectifs bi moom li ñu mën def rek mooy remercier leen parce que tamit euh, seen initiative la vraiment seen wëla rek la ñu jàkk la ñuy dox jàppale nañ ko mais au début malheureusement j'ai vu des déclarations disant que way ñun suñoo nekkul ci Master Diack euh, ñun <laughs> Lamine Diack la ñuy lijjanti malheureusement nos destins sont parce que man maa doon moom te la mu fa liggéey lépp mën naa ko rendre mën naa ci rendre compte samay kayit yu leer laa yor samay euh, heureusement ma may denc kayit ba pare liggéey bu xarañ lañ fa liggéey amul dara bala muy njëkk di jógee foofu ca kuréel ba 2015 euh, amul benn sanction contre athlète russe bu mu fa bàyyi 38 athlètes russes ñoon topp ñëpp la ñu duma balaa ñu mu fay jóge ñaareel bi ca xaalis ma nga fa bàyyi lu toll ak 42 xam nga 43 milliards CFA la fa bàyyi tey fédération bi mu ngi ci ay jafe-jafe. am nañu presque 38 millions d'euros de déficit te ñeenti sponsor dong la ñu am donc Lamine Diack IAAF sant ko rek la ko mën def. Mhm. ñu koy jàppale tamit nañu xam ne nii Lamine Diack nii Pape Mbassa Diack daf nañu te fukki at juróom-benn loo xam ne mën nañ leen xarab wala mën nañ leen ci teg daal loolu moom amul. kon président maa ngi lay gërëm di la sant. baax na jërëjëf merci beaucoup. mu nekkoon seen émission seen jotaay tey nañu ko doon seq ak euh, président Pape Massata Diack di leen jox kon dig daje ci beneen numéro incha allah.